Music, Latina, of a thousand million words. Music, Latina, you take it, but tell Take my troubles away, take your troubles away. Jigéen ji muuru, siggil ma xool ak man mii la sa doom sa caat bu góor sa samuraay. Yaa ma ne woon àddina comme ndey If you get to so fake, no doubt. Find a one up and knock at the bullet man. Jam back to one who did shout it out loud. Yang may hall, a shell, not having a dent, Sabil Hall, the to Sahar Kanam Bussel. So whether you are some of the least, Linger yet to come winter, Tundigo a some moon. Boss, I know I'm Benenfis. Be down, down. bénéfice boo sañoon ma doon médecin avocat wala ministre nga may présenté naan kii mooy sama doom maire bul triste bugguma woon doon député du fen peuple Lek lekk seen xaalis doxaanee ko di commandé toog ci bureau ay connage yi ma commandé munuma woon jàngale doon sëriñ don te jàng na bakara ba Don magistrat ate yàlla doy nasi si avocat laa buy layal baa doole yi ci kanam borom doole yi médecin laa buy dugg seen biir néeg laaj leen lu ñu fanaane waxtaan ak ñoom xam fu seen feebar nek jël kaar nek big rëdd ordonnance blendi fat

Solo, eh, ouais, ma puce, c'est la plus grande t'es peut-être nous les bravards Dans mon sommet si tu plus tu parles mais j'ai les gars Sans envoie chez tu passeras ouais c'est pas ta J'ai pas dit je ne pas mais je pas des foutu Alors les freestyle Maman They come against the president. I said, you know. Yes, I. All right. Yes. Aha. Uh-huh. Go ahead. Ah, yes. Yes, I. Two. Yeah. Yes, I. Aha. Uh-huh. Anyway. Yes. Aha. Uh-huh. Aha. Layu ta cule, layu ta cule. Wow. Asal kah, layu ta cule. Rakimu mama. Yes sir. Say what? Say what? Yeah. Kai. Come on lagi. Tahol. Come on lagi. On fait de la, de, la musique, c'est tous les 21 juin. Mais le 21 juin, il va tomber en lundi. Et nous avons beaucoup de population bien pour Sur ce, c'est une décidé de côté. Nous que le 26 juin, nous fêtons la musique avec toutes les catégories, que ce soit le rap, le ballard, le reggae, R&B, le dancehall, etc. etc. Feeling like hello guys, the young man. Are you ready for the show, niggas? Are you ready for the show, niggas? Are you ready for the show, niggas? Are you ready for the show, niggas? Uh-huh. Uh-huh. Hey, cuz. Yes. What guy do we doing? Oh. DJ. DJ jelas awal, DJ jelas awal, bom sap sap apa aja. Whoa. Okay. just rise up, just rise up, just rise up, just rise up, out of the air. Локости, локос, вода дуде гюра. Все ноги так чума, не духа терюра. Пока ты спадла духа тебе люра. Сегодня не буду, это идем на воде гидра. Ты, эй, ты, мир, хотя бы гелюа. Мы не могу, пока парни на не wow wow wow wow wow. rek fi ñëpp baax a baax a baax di wax na loxo yi jóg ah ah yee dama xëcc maay wax ak nigga si may sànni xeer jamala jeen du metti ci man ma ëpp xeer seen i pexe du ma tere àgg fi ma bëgg a teer da nga bëgg a dee bi pot di nga signé guerre man a yeen du mës a jeex ira ira ba géej di feer ñoo di wu ma dere fii sama talent ba ma def kii bu jàppee ni yaa ngi ci kaw ma nigga da nga juub dooma siib dooma gis booy bu ndaw nga ñëw wàcc la ci suuf amatuma temps pour dafa booy def naa la jomal grain omo gome goog ran si ñam bi gudd sama maay teg a raayam bi si loole sama gaay bëgg tëj sama loxo sotti tere sama yéen bëgg duma am na jàmm benn la bët fii ñoom ñëpp mën a dóor ha ki ngi biir ki ngi biir foog seen guerre rab bu dee guerre microphone sama ar benn tur gu ragal ndaw man dama pare ci lépp sacrifice rap yi bëri man dama aaj ci lépp gën xam nañu comme ça Big Side Dubai. Yeah, ñu ngi Dubai non ñu the Dubai. Big Side Dubai. Big Side Dubai kële. Xëy na def yéen a def ñu ngi Dubai non ah ya Papa euh, le leader génération consciente euh, Gore. lan la son s'il vous plaît population en tout cas merci beaucoup Balo excellence monsieur le maire vraiment sama mag sama xarit muy Massamba Diagne muy toog di ko may nag waa marché Tivaouane ñoom Baye Sall ñu ngi fi commerçant yi ñoom Serigne Mbacke Gueye. Modou Baye Fall mi ngi ko may Ami Collé di ko may ñëpp ay ci ñu dem. Golden Boy moom itam de la musique sénégalaise. donc su ma ma ma dee

waa tout d'abord damay santaat yàlla julli ci yonent bi mais di rafetlu initiative bi Cheikh di leen gërëm di leen sant ndax tey tamit yaakaar naa ne ku ci nekk teg na sa bët ci coono yi nga xam ne que moom ngeen fi daj tey lépp rek ginnaaw yàlla ngeen bëgg mbir mi réussir mais nag di gërëm suñu kilifa suñu maire monsieur Diagne si Meng jàpp na ci affaire bi bu baax a baax a baax man dama ko souvent wax naa ko ci média yi ni dañ ko war a jàppale ndax nit ku baax la Cheikh nit ku am sutura te Tiwaawan la dëkk fi la juddoo fi la màggee mais kenn gënu ko def katu lu baax la li may wax nag yàlla rek laa ciy jël seede mais nit ku baax la Cheikh parce que lii ku ko xool xam ni vraiment développement Tiwaawan moo ko ñor lu neex jeunesse bi moo ko intéressé Cheikh. donc tey da nga réservé li nga xamante ne mooy mooy voilà mooy doomu Tiwaawan yi. waaw kontaan rek parce que ku xool public bi xam ne ñëpp génn nañu ñëpp kontaan nañ di wax rek na nañ ma xaar tuuti ñu ñëw yëngal fii incha allahu rabbi. indi nga lu doy waar ah? non tey loo xamante ne suñ ñëpp dinañ kontaan def single bu bees tuddee ko chéri kaay wuyu ma hmm. mu nekk affaire boo xam ne que mi ngi toj àddina donc c'est la première fois ma ñëw play ba ko fii tey di ko may nag monsieur le maire si meng mais dina ko may incha ok kon donc ñu ngi lay xaar ah ok mu a ah, ñu ñëwaat léegi ak yeneen si kanam léegi-léegi ah ok jaajëf

dafa yomb si man foog taxu naan su ma rab dëgg booy damay mar naat maay mar bit yaay mar tax yomb si man damay jafe si ñoom gisuma seen boos bee dina coow ni nga tula baal ma xool yàggu ma la pour ma soo dëgg dëgg dina coow dëpp di fi yàpp di fi foog padi sëri maa ngi dibi tëri pour ma la sax jàpp rappeur ci eh, laay coow ndax bëgg réussir nekk noo ngi ama yàlla dafa góob kenn ama wax dëgg moo ma gën a neex ndigal li may teg dafa leer namp ko bëgg fer ajo ko bëgg a réer nga jëm bëgg a réer mala ak kan ma nekkal fi yàlla nga nekkal fi kan dëgg dëgg tar naa ama doo dégg de bruit maximum de bruit pour euh, nice na donc il est encouragé donc ko gaan ba nice la ok gars yi ni ñu leen fii coloration fi ne ci musique même hip bi gis nañ ne léegi

mais ah. dañoo fël ak beneen style bu bess muy lu xew si jamono muy lo xam vous allez tous bouger sur cette j'appelle Black Queens Boys Black kids Boys where you were aha ah. kamu yeah man après Black kids après Black Queens, on aura Clever Clever Brand Clever Brand that's right okay Black kids yes I yeah salaala alay salaala alay yaa bëgg naa leen ok jëf c'est kii Ndeye Diop waxal ma gars yi ne leen kii Ndeye Diop yaa yaa dañuy sopp seen taxi yëpp mel ni Diop bu ñu foot Ah. king day foof ngay rey la meñ ak ten day foof ni ko toog leen ah. ah. fii kekk la nen du fi sa taati booy bit bi lu ma ne li ma def dama man parfois ma def yëfi koo man gem bi ñëpp laa fay gën tàkkatul jiw tàkkatul ñu nekk si gem bi di tàkkale dama dugg si gem rek fukkale sa m si d day kaale meen sama neem ku ne xam nga baay yow kii la man si game bi ay kilo la rawe jurul wax bari dañoo pare nekk xale du ñu boyi fii ray attanul ñu on pèse lourd jox la baari mel ni bombe atomique suñuy tekk yor nañ puissance u Amérique real talent bokku la fi tàkkale leen tàkkale jox la baari mel ni bombe atomique suñuy tekk yor nañ puissance u Amérique danoo di try lii ờ, ba léegi dañuy ànd ak gars yi xam nga ñu fekki ay ndaanaan xam nga gars yi ñu ngi taxaw si ginnaaw Billy Kak mu ngi fii Pisco mu ngi fii xam nga Old Man donc sans plus tarder dañu nuyu gars yi ñu nuyoo xam nga bëgg ak ak ñi seetaan actuellement donc Old Man a Man Billy donc tey ba ma taxaw nii xam nga si gars yi voilà Old tey nga ñëw fekkee public fête de la musique donc lan mooy première impression bi quoi waaw bon di saluer initiative bien, hein. uh-huh. di di vous di la chapeau à vous ak ay ñoom Calze ni gars quoi nice na nañ ci parce que li nga xamante ne Je nañ koo def am vous yi jiit defal saluer quoi c'est un beau geste pour mm-hmm. vous na quoi nico aussi remercier monsieur le maire bi nga mm-hmm. ba affaire quoi chapeau à vous quoi franchement bien bon, aussi gën nañu gis gën nañu am donc en tant que aussi nga mélomane nekk aussi koo xam ne di xam ne voilà day dafay teg gars loxo donc lan la lay def quoi. wa mais bon bo xolé wa comme ni public dañ fee am parce que tamit uh-huh. euh, les moyens qu'il faut moo fi amul woon. pour gars yi taxawal ko mais comme tay bi nga xamante ni honorable euh, bi nga xamante ni moo ci dëkk bi muy monsieur le maire jàppale na jeunesse bi. wan leen yoon bi yaakaar boy booy nañ jéem am tamit ñom ben euh, potentiel bo xamante ni dinañ def le maximum. di jokkoo municipalité bi di xool yan si la ñuy def bay teg yenn programme yi ak mën a organiser wu di xool parce que tamit hip bi du teg concert rek jouer après mu jeex war nañoo mën a am foo xamante ni fa la ñuy toog jataay studio et tout ça nga xamante ni mooy mën a yokk euh, maanaam seen koom-koom ak seen inspiration ci wàllu musique bi quoi voilà mais du concert rek après mu jeex quoi jaajëf mu nekkoon ulu meena ñu ngi baax frère ba léegi ah, Billy yi nekk aussi Serial waaw mais delloo siyaar Blaise. waaw la wax Pilou Diagne waaw. xam nga rek macha quoi sama xol dafa sedd quoi. waaw parce que tey vraiment lii dafa manqué woon. fête de la musique xam nga vraiment ñu woote ko public Tivaouane bi yëpp génn fas yéene assisté gis nga boo xoolee punkal yëpp ngi fi ah. ngi fi ñu ñu ñu def ak show boo xamante si ni mooy di wax gars yi xaar quoi bili mi ngi ñëw ak facette yu bees tàq quoi ok guys, kalian pilih kamu mu ñëw nih, nii ah si kanam tuuti. ben, tey bro aussi yàgg si boo nekk aussi quelqu'un si si game bi eh, puisque ñu ngi ya. ziar. ñu ngi delloo blaz. Blaise. ok ñu bàyyi aku, nuyu aku euh, suñu ak suñu euh, suñu mbokk internet yi. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal. Uh-huh. Euh, di rafetlu Blaise ah, avant tout dañuy rafetlu initiative bi mm-hmm. parce que au niveau de Tivaouane concert bu mag bu mag bu mag ni warna naa am ñu kon ñu ngi rafetlu initiative bi bu baax a baax a baax di leen remercier mais nag euh, Tivaouane tamit lii la ñu am lii mooy suñu culture ñun ay rappeur lañu xam nga euh, organisation bi tamit euh, gars yi doxal nañ ko jàpp nañ ci bu baax a baax ñu ngi leen di remercier bu baax ñu ngi leen di jaajëfal peace. wala boog Pisco mu nekkoon Pisco ah ak beneen daanana ah. donc mais ça fait un bail gis niveau si game bi xam nga xam naa voilà as naa dafa nekkoon si tunnel yi bro nu mu demee. nice nii gars yi mu ngi cool ah. ah, mais ñu bàyyi looy waaw di ko sant di nice di rafetlu Lu, yi seen teewaay gars guys, ñu ngi nice daal. ok waaye di rafetlu sa job. ci waar bi parce que tamit boo seen ni, nii wala nga xaar nii bàyyi booy ak seen waar nii. Hmm. waaw du demee nii daal. ok ñu oh, ngi rafetlu sa eh. ya, liggéey. Ya, ya, eh, jaajëf jaajëf liggéeyu kim si cameraman. ak gars yi fi teew yëpp. ok waaw maximum de bëggee. jaajëf waaw fête de la musique la. la ñu wax ah wallaaw. ok bu nekkoon na Pissarra donc gars yi ñoo ñu si bu léegi léegi xam nga ak yeneen daanana ok wala boog ok. waaw ah, ba léegi rek ba léegi xam nga ba léegi aussi ay yeneen daanaan ah, ay yeneen ñu ngi fii xam sa boos amee bureau bi grand na de ah jaxaw jaxaw bi mag maa ngi sa ginnaaw <laughs> ok ñu bàyyi la gëm nii ak suñu mbokk entraîneur waaw asalaamaaleykum maa leen di nuyu ñëpp di leen bégg lu bëree bëri ah di nuyu waa Tivaouane yëpp donc tey nga ñëw assister fête de la musique nekk doomu Tivaouane voilà lan la lay def waaw di ci am contentement bu bëree bëree bëri macha allah parce que lii moom yaakaar naa ne initiative bu noble la quoi waaw wax dëgg yàlla contentement la si ñun waa Tivaouane yëpp yëpp yëpp rawatina ñun artistes yi nga xam ne ñoo ngi Tivaouane waaw. tey la nga réservé comme dab rek show show show show comme dab waaw comme ni ko yaaga defee rek yaa ma a xam. Ah, gis nañu aussi à chaque fois xam nga say sorties public bi lan mooy secret bi xam affaire yi moom baay Blaise liggéey rek. affaire yi kenn moom fi dara xam nga kenn juddu fi indaale fi dara da ngay gëm benn affaire nekk ci suñu borom fekk la si teg la loxo yaa ma gën a xam. ñun daal liggéey lañ jiital quoi mooy loolu. ok donc ñu xaale tuuti si kanam tuuti. amul ragal dañuy yëngal tasaare fépp. yes gars yi mu nekkoon ah, Xumza Boss ah ma ñu jox la rendez-vous si a tuuti ak gars yi ah. ok bëggee sama gars yi. Kélémba Taïf léegi nag lan mooy solution bi. gars tout le monde loxo yi ci kaw ah. wuu. kii di loxo yi naa ci mën ko doon ci sukkur xorom waay yi yore ci facette wuute gis nga fu ma neex rek fële doon ci sa meq si giris Thiago Sadio Mané pare yow ko del polyvalent bi danga nangu topp ci rang bi mobiliser rek diriger génne la ko ci vent ma xëy di jub rek samp dëgg ci biir gàtt bi ndax dama ko ku ko areel delloo te noori saas la ci man mérite la ma doon fi tey ki ma doon ndax ku til naa ko mën jégal ko teg ci naa añil rekk desal um peut-être ci joganal defuma congoom naar te yëgu ma yëgum bëy dama tempo tempo rekk topp yoon wii wéy ku dina loolu sori na bëri na xaaxam lëndëm ahaa ñoom fi tam gëm-gëm rek ña fay yàgg fu ma jëm ku jëmbat garab dëkkee suuxat rek mu war la keral bu dellu yàgg dëgg la rekk mbër fi ma teral ndax ku til naa ko mën jégal ko teg ci joono suba ngoon Llevaban esta mujer culpa. People, people, they were right. Woo! Come on again. It's back. It's back. Nobody, nobody, nobody, nobody. Come on. Come on again. You cry. You're the door. You're the door. You're the door. Never go. sans frère et si Malick laa nuyoo jàmm sax la jamono bàkkut rek bëgg leen rek ne leen bër bëre leen Leewtoo woo dóoroo wéñu la woo neexul waaye xam nga di lee lu dul dëgg mënul yàgg bëcc buy naan foog mu li ma soppe naa ko daal tar waxkat yi tàggat li askan bi soxla ba jël indi gerte like at the studio, huh? You move low, let's take it up a show Upstairs Carlo, fuck you baby, yeah we in Give your moves to me, come on again Mother bro, thanks to only me I'm a pop respect for Lepi One love with me, do the money money Love you baby, keep the Hawaii It's back, it's back Woo! I'm gonna tell you what you want

donc en tant que aussi nga mélomane nekk aussi koo xam ne xam ne voilà day dafay teg loxo donc lan la lay def quoi. wa mais bon bo xolé wa comme ni public dañ fay am parce que tamit uh-huh. euh, les moyens qu'il faut mo fi amul woon. pour gars yi taxawal ko mais comme tay bi nga xamante ni honorable euh, bi nga xamante mo moo ci dëkk bi muy monsieur le maire jàppale na jeunesse bi. wan len yoon bi yaakaar boy booy nañ jéem am tamit ñom ben euh, potentiel bo xamante ni dinañ jéem def le maximum. di jokkoo municipalité bi di xool yan système la ñuy def bay teg yenn programme yi ak mën a organiser di xool parce que tamit hip bi du teg concert rek jouer après mu jeex war nañoo mën a am foo xamante ni fa la ñuy toog jataay studio et tout ça nga xamante ni mooy mën a yokk euh, maanaam seen koom-koom ak seen inspiration ci wàllu musique bi quoi voilà mais du concert rek après mu jeex quoi jaajëf mu nekkoon ulu mee na baax frère ba léegi ah, Billy Crack aussi mbokk yi nekk aussi waaw mais delloo siyaar Blaise. Ah, waaw loolu la nga wax Pilou Diagne waaw. waaw mais xam nga rek macha allah quoi Blaise tey moom sama xol dafa sedd quoi. waaw parce que tey vraiment lii daf fi manqué woon. fête de la musique xam nga vraiment ñu woote ko public Tivaouane bi yëpp génn fas yéene assisté tey gis nga boo xoolee punkal yëpp ngi fi ah. gaa yëpp ngi fi ñu woo suñuy fan suñu ñëw ñu fas def ak ñoom show boo xamante si ni mooy loolu. waaw di wax gaa yi nag nanu xaar quoi bili mi ngi ñëw ak facette yu quoi ok guys, kalian xaar kamu Birka mu ñëw léegi nii ah si kanam tuuti ba bro aussi yàgg si boo nekk aussi quelqu'un si si game bi eh, puisque ñu ngi lay ziar. ziar Blaise. ok ñu bàyyi nga nuyu ak euh, suñu ak suñu euh, suñu mbokk entraîneur di nuyu di leen jaajëfal. Uh-huh. Euh, di rafetlu Blaise ah, avant tout dañuy rafetlu initiative mm-hmm. parce que au niveau de Tivaouane concert bu mag bu mag bu mag nii warna naa mën ñu kon ñu ngi rafetlu initiative bi bu baax a baax a baax di leen remercier mais nag euh, Tivaouane tamit lii la ñu am lii mooy suñu culture ñun ay rappeur lañu xam nga euh, organisation bi tamit euh, gars yi doxal nañ ko jàpp nañ ci bu baax a baax ñu ngi leen di remercier bu baax ñu ngi leen di jaajëfal peace. wala boog ko mu nekkoon ko ah ak beneen daanaan ah donc mais ça fait un bail gis niveau si game bi xam nga. xam naa voilà as xam naa dafa nekkoon si tunnel yi bro nu mu demee. nice nii gars yi mu ngi cool. Ah? ah mais ñu bàyyi looy looy waaw di ko sant ah di nice di rafetlu affaire yi seen teewaay gars yi ah. ñu ngi nice daal. ok di rafetlu sa job. ci waar bi parce que tamit boo seen bàyyil nii wala nga xaar nii bàyyi booy ak seen waar nii. waaw du demee nii dal. ok donc ñu ngi rafetlu sa liggéey. jaajëf Kim si caméraman. ak gars yi fi teew yëpp. waaw maximum de bëggee. jaajëf waaw fête de la musique la. dañu wax ah. maximum de bëggee. from Black Prince Boy from Gaye Mekhe. Gaye Mekhe. yes. ok. one love. ati léegi ku des. yeah. affaire yi mi ngi tàng wala tàngagul. mu ngi show mu ngi show mu ngi show mu ngi show. waaw du yomb tey. Cliff Bryan. Clever? Clever Bryan. Clever Bryan, right, yes sir. Clever in Bryan. Okay, come on again, you all. Après Clever Bryan. Yeah. you from D1 G the Peter. Yeah, Clever Bryan from D1. Nyanda usop. Salam alaikum, salam alaikum, salam oh. alaikum. Mette di bolun fat saksida. Teman dama corona ci game. la i ñoo di waga mën rap di def lu leer ci game a taxal rap wat naa ni du bida jaay la bandi ñoo di la waga du mën ak ñoom ci seen bi pusal yak sa koore say son du pare te dooma bare i rabo nooy fis na góore fokk yak sa tim a go naa a soppi comme ni magi di soppe franc bi ego ñandaat ñoom du ergo xumbi laa lay tegal di la boss bi yëgoo ki la ko prend tey mu tëj laa mel ni ni inno bilibit sis crack crack fo dama koy jàpp crack crack bom Oh, oh, oh, Okay, let's see. Thanks, thanks. Wow, nice. Friend, nice done. Yeah, man. Toad. Yes. Wow, we're going to be direct. Uh-huh. Yeah, can current a group in here. That's right. One by one, step by step. Yeah, man. Okay, guys. Uh-huh. But again. Show, show, show. That's the one again. Ah. That's the one again. Biggie Ba. Welcome baby Let's Maybe Biggie now Biggie Ba. Hello, you get the Biggie Good.

dañu la ñuy yéegal parce que ñoom fi ñu ñibbi dafa sori Jah from the Queen après Jah from Joanji da lay di mat ji from Ñaaxa Fall Jah from Joanji eh bu fekkee kan bi ngi baax yéegal ko Jah from Joanji donc da daa eh, benn benn affaire bu am donc. ah di yee di yee di di

sama takk ndeer mooy man ca maa ngi nii maa ngi nii waa Tiv maa ngi nii est-ce que ça va est-ce que ça va ça va pas est-ce que ça va est-ce que ça va aja yeah yeah yeah gis nañ ni di geste bi fatal

amul sikki sàkka dox fii ba Dakar ki nga foog ni moo fi man moo fi gën a ni la du ma ñee kenn kenn du ma yéem sama bopp rek doy na ma kéemaan je vais tout faire pour m'écarter du danger tôt ou tard sama vie di faaman na faaman na faaman na yesaay faay ci kaw ci kaw yéen a ko ci kaw jël gisuma dara gisuma dara gisuma dara génne leen téléphone seen poche yi waaye nan laar nan laar nan laar eh, tuxaat tuxaat eh brigade na tàkk na brigade yi tàkk Non, put DJ, hey, DJ, touch you in the hole. DJ, touch you in the hole. Uh, uh. Yes. Check out what I'm against. Check out what I'm against. I'm going to play back against. And so you're hearing this guy. show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show. Mar ñu ngi lay bëggee. waaw maa ngi delloo bëggee de. mbaa yaa ngi kóol. waaw moo ngi nekk de. mais sama daal yi tilim na la gaañ na. waaw noonu la mën a demee bis bis bay ko laaj rek. donc tey nga ñëw fekk fête de la musique bi ak doomu Tivaouane waa bi. waaw lan mooy premier mot bi. waa li may wax mooy naas na quoi te lii warul di fi gëj quoi dana war di teg ay concert par mois ak par kii noonu parce que mooy tax talent yi feeñ ko gars yi gën a dund hip hop public bi gën a nekk quoi gën ko kiyal quoi ambiance bi ñu xam ko quoi loolu la quoi parce que public bi moom mooy doole mais doole jooju pour ñu am ko foog ñu teg ay concert def ay saay fa surtout xam nga di teg di bëggee quoi yaa ngi fil waaw. ok Maïty lan mooy projet actuellement ni fan la sax toll si projet yi. waaw ñoo ngi si projet yi mais xam naa dañu bëgg a bàyyi ba ba événement bi jàll quoi ñu ñu ñu dekkalaat xam wane waat la quoi parce que xam na di public be fan si kii soxla nañ yeneen sound yu bees quoi ñoo ngi ci di ko daas. ñoo ngi ci waaw ñoo ngi ci di ñaan yàlla xama nga suñ tëbasee rek. lépp yemb quoi ñu teg yeneen sound yu dóob jox ko askan bi quoi ñu mën a nekk si leneen xam nga yes mag ji mu na ko noonu ah. bàyyi leen ko xel mu ngi ñëw si kanam après si kam ay yeneen bagage ah. dàq wekket li dàq suukar dàq lem mooy lu jóge si man ñëw si yéen li dàq lépp lu ñuy coow ki la jox gaal bëgg na nga joow you know you know mag ci rap seen forom ñaaxa faal bul fàtte tóor xel day ñoo doon sa gàddu koor ba ñu ma ku ma jox toor kuri xat la ñàkk gëm sa bopp wor la soo ne ma jàkk xam ne rap tekki na ma dàq rap sama bopp sama bopp dàq rap ñëpp ubbi leen seen nopp tey ma rap lu ñëpp waaw maa ngi delloo pege de. mbaa yaa ngi kóol. waaw moo ngi nekk de. mais sama daal li tilim na la gaañ ah. na. Ah, waaw la mën a demee bis ah. bis bay ko laaj. voilà donc tey nga ñëw fekk fête musique bi ak doomu Tivaouane waa bi. waaw lan mooy euh, li may wax mooy nice na quoi te warul di fi gëj quoi danoo war di teg ay. concert par mois par kii yooyu noonu parce que mooy tax talent yi feeñ quoi. gars yi gën a dund hip hop. public bi gën a nekk quoi gën koo kiyal quoi ambiance bi ñu xam ko quoi loolu la quoi parce que public bi moom mooy doole mais doole jooju pour ñu am ko foog ñu teg ay concert def ay saay fa surtout xam nga di teg di bëggee quoi yaa ngi fil waaw. ok Maïty lan mooy projet actuellement ni fan la sax toll si projet yi. waaw ñoo ngi si projet yi mais xam naa dañu bëgg a bàyyi ba ba événement bi jàll quoi ñu ñu ñu xama wane nga wanewaat neen quoi parce que xam na di public be fan si kii soxla nañ yeneen sound yu bees quoi ñoo ngi ci di ko daas. yeah so ñoo ngi ci waaw ñoo ngi ci di ñaan yàlla xam nga suñ tëbasee rek. lépp yemb quoi ñu teg yeneen saan yu dóob jox ko askan bi quoi ñu mën a nekk si leneen xam nga. yes mag ji mu na ko noonu ah bàyyi ko xel mu ngi ñëw si kanam après si kanam ñëwaat ay yeneen bagages ah. Thank you. I'm nappay dooni nii bëgg a defar sama

I'm gonna a a fucking money money, I can talk money up and down. Taxi, but not a shy, I can remember like a sass war. Bob, but nigga, what's the motherfucker? Fetch some of the king of the Jeremy, I'm on the summer, the king, I'm on the mother, I don't even give a Jeremy, the town, the guy, the guy, the guy, the guy, the guy, the guy, the guy, the guy, the guy, I'm gonna follow, I'm gonna figure out the salad, never do my body, I'm gonna follow, I'm gonna feel like I'm gonna do my I'm gonna do more, eh? If I'm gonna change it, I'm positive. Guy, you must sell it, sell it, do it, I'm gonna sell it, but I told them I don't go Kennedy. ci mel a This is the MC, I'm already on the summer to the industry. Four times, I'm already fucking on track. Five times, take a send it up on this black. Six times, last up, I'm missing. Jam, i the bomb, drug is sending my melody jam. Yeah, I sexy boy. Hey, sometimes on the car, it's in my ala bracket. Hey, Roy Moncor, Hey, yo. Hey, I'm in a bomb. changé waat couleur musicale. amee ben benn gel la moom mi euh, mbalax lay def n'est-ce pas. that's right. Melo Bass. Melo Bass. yes waay. nigga Blaza. Ah. maa ngi lay bëggee lu bëri waay maa lay donc tey nga ñëw assister fête de la musique bi. en tant que MC en tant que doomu Tivaouane. Wow, wow, wow. bon juste euh, idée bi nice na wax dëgg yàlla parce que le fait que ñun ñëpp ñu daje fii passé benn bon moment xam nga dund euh, ak fête de la musique ensemble. je pense que c'est autre chose quoi te ñun en tant que artiste lenn moo ñu war lenn lenn mooy suñu devoir mooy ñëw présenter suñu produit wan gaay li nga xam ni xam nga mooy suñu liggéey mooy suñu job wax dëgg yàlla initiative bi nice na waaw les acteurs tamit euh, gis nañ leen ni ñu sonnee ci affaire yi ku ci mel ni yow yeneen gars xam nga mënu ma lim mais gis nañ ci ni ngeen sonnee gis nañ ni ngeen taxawoo hip hop div te ñu ngi leen ci remercier ñun en tant que artiste new school yi ñu ngi leen ci remercier yéen ñëpp quoi wax dëgg yàlla mention spéciale à vous te inshallah allah dinañ leen promettre delloo leen jukkal may leen édition concert spécial pour yéen inshallah allah bu yalla yàlla. ba ça fera plaisir donc di loolu voilà loolu ça fera plaisir voilà donc nous xaaral lu tur si kanam tur xam naa. ok ok amul ragal ok Kims mu nekkoon euh, melo bi xam nga jox naa rendez-vous si kanam tuuti ak gars hein voilà ak yeneen artistes ak yeneen daanaan.

waaw ñu ngi nekkoon temps di joobaa ñu ngi nekkoon temps di ko di ko jaayante ko suñuy morom xam nga génn tuuti xam nga jëm a fësal li ñuy def wane Tivaouane chaque instant dafay génn ay talent xam nga nekk aussi tamit ci ay projet xam ne génn nga on a fait xam nga pas mal de xam nga truc tu vois comme def nañ fi ay clip ci Ramadan bi ñu ngi préparé si yeneen projet mixé xam nga ñu ngi ñëw ci kanam ay maxi xam nga yëpp macha allah ñu ci ay bagages daal je veux dire. Mhm. kon donc mën xam maxi ak ay bagages su dee waa ci kaw. waaw waaw incha allah tey moom bëgg naa xam nga wane Tivaouane ni seen doom gëm na génn liggéey. am lu mu teg tey seen loxo lu xam lu positif lay nekk xam nga incha bon. ok next sur gars yi mu ngi leen di rendez-vous léegi ci kanam ah Maxis Diop mu nekk aussi doomu Tiwaan bu dee boo xam ne affaire nice ba léegi ba léegi. bu ñu waxee dëgg lu may doon di faale ne doomu adama bii ñu ne yàqu ay mood te ni ma bind lox si dinaa raba raba def doomu bëri sa bii parce que mu émbo. sëbëj sa lal léegi bi ma bëgg dara amu fi. What a shit now. All I want to do is that I don't care that you so much now. Thank God a shit i 애라보고 다른 없는 등에서 만나는 멘토실로 Assalamualaikum gansen Mana boy beda karab ci bëpp ko lusu La di gëna bëgg sama man Lu doon lay safara wallahi bi du musu su Dama na wala gi ma man Dama legi dëgg dëgg Dama legi dëgg dëgg Dama legi dëgg dëgg boo dégul bëri xanaa sama prix dafa tuur boo xamal lu may teg pour prise di nga bàyyi soo génn rek nga def prise ji bon. FDA du projet bi te sa mbokk bu ma rafetlu nga ay merci. ci parce que maa ngi wut ay biir sa xol bu bon ma dégg day fay si man maa ngi gën a guddi te bu gis naa ñu metti bu boo ñu soxo sama kër dina am ñu xeex si dama yàgg pare rap yow ma nga jëmatil ma nekk woo te nga dala tóor fi ma ma teeku sama temps ndax dama yàgg xam ne jaxata ji fi ne duñu mos a tijji classe te nga tamu samay baa na ñoo la gën a xam fi ma taroo ba sama ba ak fii awatu ma ko dira ay tabi am na compte pour sal tasu kirim bi laa yokk fixe hey, hey, Okay, man. Yeah, yeah, Donc, belangrijk voor Jegel. Nee, du ik Oui, die change couleur musicale, comme je l'ai dit tantôt. Uh -huh. euh, juste dans ma lay seen uh-huh. lay seen de Dabakh FM mm. euh, donc Ablaye ñëwal waay ñëwal ñëwal ñëwal da nga bàyyi fa ñooñu noonu ok voilà donc euh, Ablaye waaw c'est mon confrère mais il est, il est, il est nouveau dans dans l'animation machallah li dafa commencé nag di toj quoi loolu doo nga jaaxal waaw li ma waroon am yëpp bi jël na ko waaye naa ko bàyyi donc lay loo gisee fête de la musique bi soo ci paree ñu bàyyi la nga introduire ki nga xam ne moom mooy la sister. wàccu waaw est-ce mu ngi baax mais est-ce que yéen mais mu ngi cool donc mesdames et messieurs ici à Tivaouane au terrain préfecture de Tivaouane mbalax mee ni def ko fi am na ñoo xam ni ñu ngi ci suuf te yeex fas yéene ñoo yéeg léegi daati yëngal fii ba fii daati neex may kontaanee képp koo xam ne tey jii nii ñëw nga fii répondre li nga xam ne moom la les artistes de Tivaouane daa ci def mu nekk fête bu nice bi nga xam ni moom lañ jël daa koy def invité ji bépp artiste boo xam ne yaa ngi Tivaouane wante yaa ngi ci département bi yëpp donc Camara Laye je pense que kan ma war a yëg ñu daal di koy enseigner rek ah. nee naa leen ndënd ak sabar bañ bëggee siiw boobu lañ dem géwël te tubaarkàl la ñun yàlla dafa def ñu nekk ci mbalax mi rapport li ngeen di def neex na lool waaye tubaarkàl la ñun sabar yi ñuy bégal ci la ñuy bégal tamit suñu soppee yi suñu nekkee ci biir studio. ok wóor Amina mu ñëw donc sans plus tarder on va enchaîner avec. Amy Lam borom Kër Massé Amy Lam maximum d' applaudissement pour Amy Lam dama bëgg yéen ñëpp ngeen daal di koy tàccu Amy Lam daal di dikk daal di fiy yëngal borom Kër Massé nee naa leen il est jeune mais il est pétri de talent il est talentueuse il est dynamique il est éloquente Amy Lam ma ngi noonu souvent applaudissement. ok kay tàccu leen ko waaw tàccu leen ko ok. salaamaaleykum waa Tivaouane. la musique bi en tant que doomu Tivaouane. waaw gis nga donc dëkk Tivaouane lan la lay def. di ci kontaan rek euh, que lii moom lu nice la te ñun waa Tivaouane rafetlu nañ ko bu baax. ñun jeune Tivaouane lii rek lañ soxla ku ñu jàppale kontaan nañ bu baax macha allah. actuellement nii bon yëngu woo si kaw. mais euh, mais lan nga période lan nga réservé li nga xam ne mooy doomu Tivaouane waay. non loolu surprise lay doon. waaw incha allah ci kanam tuuti incha allah. ok donc mu nga xam aussi si sa Amélam fan la toll si projet actuellement nii. waaw ñu waaj lu garaaw ah naa fan yi rek incha allah ñu waaj lu garaaw na ko ñëpp xaar. Uh-huh. ok mu nekkoon si sa amila am gars yi leen ko xel. ok gars yi ba léegi si coulisse ah cette fois ci recevoir aussi benn doomu xam mën naa sax doomu Tivaouane la parce que kër ba Baba Tivaouane benn la Enzo ñu ngi lay ziar. nga ñëw assister fête de la musique bi ba kër Baba ñëw donc lan mooy impression bi. waaw gis nga de parce que lii dafa nice quoi parce que lii bu ñu ko defee nii. Uh-huh. Euh, mel na ni Tivaouane yëpp lañ ko defal. parce que ñun amuñu lu dul hip hop. Ah, ah. amuñu lu dul musique. Ah, waaw parce que ñun dañuy dund musique nice euh, di wax ni képp koo xamante ni am na mën na mën na mën na jouer lu mel ni Tivaouane xam nga nga jàppale ñu ci. Mm. parce que tamit ñun ay jeunes yoo xamante ne bii ni soxla nañ lii nii. que ñun moom la ñu am te tamit moom la ñu yaakaar quoi. di ñaan bépp autorité boo xamante ni mën nañu ci mën a jàppale. xam nga mu jàppale ñu ci mën a jëm ci kanam quoi parce que li dafa nekk loo xam lu nice la te tamit ñun mën nañu yóbbu feneen foo xamante bii nii fu sori ko ok donc euh, ba léegi que si n'est-ce pas. Et instant la nga le public le waaw après man maay bu kii bi wàcce ni man maay yéeg. yaa ñëw quoi waaw man maay yéeg ak ak bagage day waar ah. ak yooyu garaaw kay. ok amul rajo kon ñu xaar incha allah. ok waaye di leen sant. di leen gërëm parce que li ngeen def ni dafa nice. xam nga yéen a ngi lancé yi nga xamante ni bii génnuñu c' est la première fois ma wax ci ci ci ci site. waaw parce que lii nii dafa nekk loo xamante ni lu nice la quoi di leen ñaanal yàlla neen yàlla jëmale ci kanam ak kanam ak waaye ci waajal la ñu xam dina maa yu ñu sa tur ak sa sant. di la remercier ndax lii di yombul. woo dañu wuy si la xam nga yombul. kon ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen bëggee. képp may ka fan bi si buloo. kon di koy teew sama diwaan. di rab bi namba man kenn du ma mos a gondi. yàgg na ma ma dalee jukki yi ku si bëgg leer impact la si kaw man kenn du ma teree dem te ma mos a loxo geen lu metti naa si génn yàgg na ma ma dalee jéem di ko bàyyi ci von sama taaw xam naa li bindoo réer ni ko defal

Italy. You got be a problem.

Let's go. no cuz But some people pussy Talk about so many cuz Now I'm for my money I'm looking for my dinner Come on, for my money I'm not proud my that I'm on my TV Look at me, Becky Somebody you. You might, you might. Padre, padre. Come on, now let si interview yi xam nga nekk si coulisses yi benn réel na naan mais nag dafa daw kaa gis tuñ ko si game bi <laughs> ah, non da nga daw bro voilà donc ñu bàyyi la nga nuyu ak fi lu taw naa asalaamaaleykum gars yi maa ngi leen di nuyu tamit di nice action bi vraiment ko gis li xam affaire bi tay nice na trop tay vraiment content nan baax a baax ma meen dem. Ah, ba tey ba tey ah, ba tey bu la bu la neexee tay may bi ah. voilà donc tay en tant que MC xam nga nek voilà yàgg a teewal yàgg a représente xam nga na nga gisee public bi ak li nga xam déjà mo am fi quoi au niveau de la tey waaw tay mom vraiment dama apprécier ah. ndax ça euh, m'a fait énormément de plaisir tay ndax li nek na ben affaire retrouvaille tamit gis ni xam lépp Steve la vraiment content nan tay on a rien à dire tay Blaise yow ni mom ni ngi lay apprécier gars yi gis nañ ce travail travail nice na waaw we also in a very happy that's Master P ma nekk names daw ma de <laughs> ok all of us, P waaw ok ba tey Wow, Dubai bàyyi the nga présenté Ibzo ah Ibzo the Gang yeah Ibzo the Gang from Bur, from Tiv quoi uh-huh. represent ñaari dëkk moo loolu voilà donc tey nga ñëw assister fête de la musique en tant que MC doomu Tivaouane aussi donc lan mooy première impression wow, waaw kontaan rek gars yi wuy si nañu te affaire nice na quoi doo xamee DJ doo xamee rappeur yi gars yi dañoo mbooloo def affaire muy benn vraiment gars yi kontaan nañ trop affaire yi wuy si nañu rappeur yaa ngi fi gars yi mooy nice. ok mooy donc fan actuellement fan projet yi toll et puis actuellement si lan nga nekk. waaw projet yi ñu ngi si benn waajation clip quoi. Mhm. waaw di waaj benn clip. aussi ñu ngi waaj yeneen featuring te mooy loolu gars bu ñu bëggee déglu. nañ dem YouTube tapé Ibzo United Gang. waaw mooy loolu son yaa ngi projet yaa ngi foofu ok Kim, c'est hein. donc comme nous ñu gars hein. donc euh, a la présence de l'adjoint au maire euh, monsieur Mass Diagne ñu lay jox dina euh, nuyu bu donc gars continuer juste sur scène on va appeler. ok gars non non monsieur le maire ñëw ah. d'accord. Donc on va appeler sur scène. Wow. Free Mine. Free Mine. Free Mine. Après Free Mine, on a le capitaine. Yes, I. Après, monsieur le maire. Free Mine. Monsieur le maire, dina ñëw wax wax am jeunesse bi. Mi ngi doog a ñëw léegi. Ok, Free Mine. Free Mine après capitaine. Ñu yëgal monsieur le maire. mu wax ak la jeunesse. Ok, tout le monde. Free Mine, what's up? Ok. Tout le monde, tout le monde, ok. Dokkaru gudu boy gis ñu ko woo kay ne gu papee kul bu ko yaama Daara du dul dem baax ku ma ñaama Rab bi fi nag kon daaw day teere Li gën ma yombul ko mbaa wax Seen soo yeesee fa ma def ci yaa Ñëw sax di ci baa mu tooy du naa Ana Sénégal bëgg na gis ñu waat ci wër Jaama ne kon kali lu gulu wali gën a demee kay ñu ma ci wër Am dag maa ya Am maa yi ma di ko doo Yaa di ko doo Soo bu doo Yaa di ko doo Yaa di ko doo

kayo ngadinana dagen ta ayo dile tarab tabar ko tata sadan na fatbat adan ta jogin jokkeli ba kala ke daf ko abba jor jogin fa daga paralen lak fra ko do arkan bon na ko fa na ko la ba man ko la ba ni ko xam naa ni do yo ke sa be be de ba ni fa sa sin fa fra ni ko ka ba ala baby ba ni ko ka ma fa no ba ni ma ki ta ko ba ko le Money be my bro. Read it, read it, Ruben, Ruben, Ruben. We gaan de dag met Ruben, Ruben, Ruben, Ruben. We gaan de dag met Ruben, Ruben, Ruben, Ruben. We gaan de dag met Ruben, Ruben, Ruben, Ruben. We gaan de dag met Ruben, Ruben, Ruben. Mama, boy, tell me, who knows the pop for that? Mama, boy, tell me, who knows the pop for that? Ruben, Ruben, Ruben. Who knows the pop for that? Ruben, Ruben, Ruben. Who knows One more time. Very cool. sama fondateur yi man ni nga capitaine ñu ngi lay ziar waaw ñu ngi lay bëggee ma meen Brésil ñu ngi lay sawdam lu bëree Real MC public bi satisfaction affaire bi moom initiative la boo xamante ni initiative bu nice la te aussi ñun ñu ngi koy rafetlu quoi parce que il est temps artistes yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk Tivaouane bokk li nga xamante ni moom la def surtout waxuma la Tivaouane si biir ville bi rek mais département bi euh, ñu doon benn dem li nga xamanteni aussi moy fête de la musique ñu fété ko tay tamit ki nga xamanteni aussi moy euh, le maire def li nga xamanteni aussi moy acte bo xamanteni acte bu nice la acte noble la reconnaître na aussi li nga xamanteni moy artiste artistes yi seen euh muy fête de la musique mu ñëw def ci acte bu nice ba nangu engagement bi mu nekk le parrain kon donc lolu ñu ko ci jaajeufal bu baaxa baax di jaajeufal tamit ki nga xamanteni tamit tay bi nekké ci njàqare tay génn na ci te mën nañu tamit aussi collègue am la de politique muy euh, ngalgu donc ñoom it ñu ngi koy remercier bu baax ak yeneen membre policiers di leen wax ñoom it ñoom ñëpp benn lañ doomu Tivaouane lañ ku nekk daa am loo bëgg da ngaa bëgg a defar Tivaouane ñu leen wax rek ku si nekk loo bëgg ñi ngay àndal ak ñi ngay àndal di campagne ak yëpp na ngeen xam ni Tivaouane moo tax ngeen di xeex Tivaouane moo tax ngeen di def dara na ngeen ànd doon benn ku dem ba sa càppaandaw ko nag ku gañe nga xam ni sa morom moo gañe quoi ba pare ngeen jàppale jeunesse bi xam li war jeunesse bi ngeen def ko ci ñoom loolu daal lañ ciy gën a saako bu baax di remercier encore Dabakh FM di leen remercier bu baax a baax parce que gis nañ seen taxawaay di remercier aussi surtout yow Blaise gis nañ sa taxawaay di remercier ma meen Kim Sow def ñoom gis nañ taxawaayam bu baax a baax duma baye ku ci melni aussi ay ak ni nga bàyyi ak kals parce que tamit japp nañ ci combat bi bu baax a baax bu amone gaay yo xamanteni mel nañ ni gaay yooyu ñu engagé kon heure bi aar bi avancé na bu yaga yaga yaga quoi. Yeah. Okay, guys, you win. Nice now. Yes. Guys, everywhere can learn. Vous avez assuré. Guys, everywhere get That's right. Okay, merci beaucoup. Okay. Bon, guys, nous avons avancé. Benentenon. Yes, I. Benentenon. Wow. C'est le capitaine de l'armée. Yes, I captain. The captain na oh, oh, laa may. waaw kooku. mais gars come. foo ko fekk day freestyle. kooku xanaa alkaati yi dañ koy tóoleel wuy dugg. foo ko fekk day freestyle. kooku alkaati yi dañ koy tóoleel wuy dugg. waaye su bu dem beneen bi ñëw. ok bu paree ñu. day may skills flow. léegi bu paree come on. capitaine. kamu bu paree ñu introduire la monsieur le maire. here I'm waiting for the show niggas. here or never.

que monsieur le maire dafa war a dem. programme suba. léegi dañ koy daal mu ñëw wax ak jeunesse am wax. voilà ñeesaay parce que moom moom jeunesse bi. lii nii lépp ngay si lamp yi tàkk ak musique beeg kojom beeg lépp nit ñi sunu dërëm dërëm ci. lépp moom moo ko développé ni dem leen ngeen feetu fête de la musique. waaw monsieur le maire c'était très normal la. waaw ok gars yi tàccu leen ko. waaw waaw waaw mi ngi noonu. lii nii moom lii nii moom moo ko defal. ah merci beaucoup Kals merci beaucoup Kamara Lai je vous en prie merci beaucoup merci beaucoup DJ Blaise waaw ah, c'est mon ami euh, Cher c'est mon ami Viz c'est mon ami alors Je assistance bi fi daje di am mbégte lool tey di ñëw participer à la fête de la musique ah tey jii nag li ngeen gis ñii ko organiser organiser ko c'est tout simplement parce que dañu bëgg a def loo xamante ni dañuy bégal ñi nga xamante ni la jeunesse de Tivaouane. alors sama présence fii li ko waral mooy tout simplement. Nous koy organisé ñëw nañu avons célébrer la fête de la musique comme chaque année nous ko célébrer mais ku ne xam l'année dernière Covid bi moo cette année ñu ni comme chaque année il faut que nous renouveler ko man dama ci am mbégte waaye lii lépp aussi su amé c'est parce que amna ko koo mo ci japp et ki ci japp moy kan moy le maire de la commune monsieur Mamadou Sy parce que xam ni la jeunesse c'est sa jeunesse té tey jii lepp lu jeunesse bi di wara a yëngatu moom moo ci wara jitu war lañ ci jappalé motax il n'a pas lésiné sur les moyens et il a accepté de financer cette fête de la musique moo je damay féliciter encore une fois les organisateurs di wax ni c'est comme ça la vie Nous n'y finissons pas. tey nekk fi fi nga au niveau de la municipalité de Tiawan. suñu nous ak suñu bëgg-bëgg du dara lu dul rek luy mbégal ak avancer la jeunesse de Tiawan. Et je pense que cette soirée-là, Wanenani, en tout cas la jeunesse de Tuawan est bien présente. Et la jeunesse de Tuawan am au moins le xamante de l'Union Konak bëgg la. le maire de la commune monsieur Mamadou Soumbeng mi ngi leen di nuyu mi ngi ziar mi ngi sargal di leen wax ni lépp loo xamante ni tey jeunesse bi soxla na mi ngi seen wet te Inshallah, dina accompagner mais dans une spéciale quand même à Cheikh à Nigue à Kals à à parce qu'ils ont été les vrais investigateurs de cette soirée. Et si la jeunesse s'est perdue aujourd'hui, c'est grâce à ces organisateurs-là. Donc je vous rends, je vous dis mention spéciale et que vraiment la fête a été très belle et nous souhaitons la fêter plusieurs années. En tout cas, nous sommes très contents de vous. Et d'appeler Nidal, comme nous nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner dans toutes vos entreprises. Et je vous invite quand même, en tant que jeune, à avoir des projets. Parce que c'est ça qui va développer, en tout cas, votre, votre vie. Je vous dis que Taïdi ne faut il faut oser. Et comme on le dit, qui ose gagne. Et nous, en tout cas, dans le sur le c'est au niveau de la mairie, les jeunes porteurs de projets, et je le dis, sous le contrôle du président du conseil communal de la jeunesse, M. Pape Dembadia, que j'ai rencontré tout à l'heure, que j'ai salué, un jeune engagé, un jeune déterminé aux côtés de sa jeunesse, il faut s'approcher de lui et je suis persuadé qu'avec lui, ah, vous pouvez espérer des lendemains meilleurs. En tout cas, encore une fois, nous sommes très contents de cette fête et nous vous tendons la main. Nous amenons des parce que nous, l'union rec, moi, le de Tiawan Kanam. Quand vraiment, Khalifa je viens de te voir Rabi je viens de te voir mais sinon on allait venir en délégation mais je suis encore très content de passer ces moments avec vous et que la fête soit belle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, maximum de bruit pour monsieur le maire. Merci beaucoup, Adiarama. Ok, guys, on va continuer. yi ba léegi ñu ne si coulisse ah mais cette fois aussi dañu ko ah. mu nekk doomu Tivaouane franchement di def affaire yu nice affaire yu dëpp affaire yu kawe donc dañ koy bàyyi mu nuyoo public Tivaouane waaye. waaw salaamaaleykum DJ. waaw salaamaaleykum Tivaouane suñu dëkk. vraiment ñu ngi lu affaire bi bu baax a baax fête de la musique bi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax di wax affaire bu nice la parce que ñun Tivaouane lañ am fi lañ dëkk fi lañ juddoo. kon bu ñu gisee suñuy grand nekk fii di ñu jàppale di dooleel organiser li kon dañ leen di sant leen gërëm. donc euh, aussi nous, naka li nga am déjà Et déjà aussi ak li nga xam fait de la musique bi lan sa première impression si loolu. waaw je pense que lii c'est la deuxième fois man may may ñëw ci yu mel parce que mon na fi ans décembre tey ma ñëw fii fait de la musique mais je pense que fait de la musique maa ngi doog a dégg ci waan di ko féete su ma juumul tey mu doon première édition ñu ñëw fekk préfecture ni mu mel macha allah ci waan ñëpp génn bëggee loolu mooy mooy ci waan ñun jàmm lañ jàmm lañ xam. te ci la ñuy nekk incha allah. kon donc mën nañu xaar ak tamit yeneen affaire yu day waar si kaw après boo ñëwee. waaw di leen wax nañu xaar dim xaar su ma ñëwee ci kaw du yomb parce que doomu Tiwaan du ragal di wax aussi yeneen artiste Tiwaan yi bu ñu ragal incha allah doomu Tiwaan never voilà never never give mu ok ok na euh, dim xaar xam naa di rendez-vous si kanam tuuti ak gars Inside. Woo! Wala ko ng soup. Wala na ako bon maa leen di nuyu ñoom ñëpp leen wax ni war na mën a leen torop nag mais wan aussi dawul dafa daani dool te bu wàcc si waatee gars yëpp xam ni wañ wàcc si na kon donc ñu xaar woon ak yeneen affaire si kanam yeneen i bagage yu uh-huh. yi gën a tolloo ok mi ngi nice jaajëf wan nga ah, la Kims mu nekkoon wan nga nekk si coulisse ah, mais cette fois dañ fa daje ak ñi nga xam ne donc donc ñoom dañoo nekk si accueil bi xam nga soxna si tur bi naka la. Rugi. Rugi Guèye ah. Fatou Ndiaye. ok donc ngeen ñëw bokk si organisation bi en tant que doomu Tivaouane aussi ngeen di ñëw si terrain si donc la leen def. macha allah neex na trop ambiance bi neex na ñëpp ñëw nañu waaw macha allah daal lii moom bëgg nañ toujours muy am chaque année incha allah. ok donc tey noo gisee allah daal wax dëgg yàlla ñëpp ñëw nañu franchement. ok Fatou Mbow waaw Fatou ba léegi rek benn Fatou Mbow Fatou Ndiaye benn la donc tey nag donc tey nag nga gisee public bi xam nga ak ambiance bi am déjà quoi. ah lii moom macha allah wax dëgg yàlla yéex na fee am ndax dañ ko gëj a am ambiance bu mel nii surtout Tivaouane nag depuis corona bi téye ñu fii yëpp yaa ma gën a xam day neex waaw yaa ngi continuer di continuer di continuer yaa ma gën a xam. ok <laughs> voilà donc mu nekk suñu audience yi ah xam naa dinañu rendez-vous si kanam tuuti ñoom aussi franchement jàpp. pour concert mais boo taxaw pour ay xulu bët wala boog. dëkk Dabre. damay dee di def di def di million rab di gën loo teg ma teggi yow da ngay natt man ci coffre bi lay teg sa MC su ma ko tay dinaa ko lekki je les calcule pas j'ai toutes leurs attentions feegi def strong doole ki kong eh maa ngi sama technique tactique laa leen di bëggal ni xetal jëgatil sa loxo xëy yaa ngi bëgg nii ci sa kanam bu man keneen mënul def lii teg tànk teg eh, ba ci bamel what the fuck yow da kon nii nga mel tagal ma casque ma sarax miskul lay war raax bala marax ak esprit sarax moo ngi guul moo ngi guul ak est exemple moo everybody ends up mahal. Look at MC Khan, you show. Mais on ne soupe pas, fait un test. Moi, je vois, y'a ce qu'il y a de danger. Même sur le tas, les rouges. Et de l'aide, du souffle bleu. on mon pose. Même sur les francs, ça m'a de

Nasa yo daga ambir kan, ambira. Ambir ah. kwa. Okay, jumpa lagi nih agai. Suara mau sama guys ya res jam ah. Suara. turun turun deh deep kalama. Dip kalama. Wow. Nang sana kan gise konsep dalam musik Ah, konser bi nice na trop, nice na trop moy lolu. Okay. nice ya. Wow, wow. nyep nyep yang nañ seen bop quoi moy Wow. Voilà donc essayer fan le projet yi ñu ngi ci kawam am na yeneen yoo xam ne dugal nañ ko am na yeneen yoo xam ne ñu ngi ko war a teg quoi mooy loolu noonu ñu ngi ci kawam quoi waaw. kon donc ñu xaar leen bientôt incha allah. waaw bientôt rek mooy loolu noonu <laughs> waaw waaw. ok bro am ragal. gis naa ba mais maa ngi doon baal maa ngi doon gars yi. <laughs> Ah, eh, ok jeex na. man la kim dëmm waxal ma dëmm yu ndaw yi si maaj man la kim dëmm. maaj man la king dëmm waxal ma dëmm yu ndaw yi si maaj man la king dëmm jaar sa ngoo dara du biig kasso sama jëm dara du biir kasso romb diikee ba bii saawoo dama dégg tit ba dem ba biig saawoo narul yomb narul dëkkaawoo dégal bii si naxta bis nga woo amatuma taane ma Lewandowski naa mayen di puus fi na bëgg ji urgence diri diri hospice bëri bëri daan ay doom fi bëri bëri daan am na wiin na firi ji maa dama dog ma mën a rab duñu benn luñ bokk ma adama bu doon guerre la bu yàgg man pare naa lutte dafa rab dafa papa la king dëmm si maaj man la king dëmb waxal ma dëmb yu ndaw yi si maaj man la king dëmb ak ni nga su baaxee ñu dem si maaj man la king dëmb si maaj man la king dëmb si maaj man la king dëmb waxal ma dëmb yu ndaw yi si maaj man la king dëmb si maaj man la king dëmb si maaj man la king dëmb waxal ma dëmb yu ndaw yi si maaj man la king dëmb ku gis ni naan ni naan ni naabu naan na ni naabu naan na ni bis màgg naa ni nga ni gën a gudd jaari képp Fuck with you, yo, damn a gangster Fuck with Muno, danga Barca Bis hana falu na kalu na geu hip hop List up, good list up, money Wale malen ci money Bushi fake, Gucci tech Man rap form of fake Bis on the is back, cut you back all the Aja, benen na, benen dana ngi mana, lay ñani jaar Wa lay mana gini? ni temu nih. mu neex Mais lay, voilà, lay en tant que DJ nga ñoo xam nga assisté li nga

waaw mais bon comme wax leen ko rek te yaakaar naan tey jii ni li daja bari mbalax mee ni ñu ngi fi rappeurs yi ñu ngi fi et je pense que tey jii ni bis bu ñu war a yéegal mbalax mee ni tey dinañ xam waaw DJ mi gars doon dégg dinañ xam kan la yaakaar naa am na lu garaaw lu ñuy waaj daal pour yéegal ko ci kaw scène bi incha allah kon nag ñu xaala ci kanam ci kanam tuuti ñu xaar ma malaa dikk rek indeetu ko mu tey mu neex rek tey fii dina neex ba dugg peex kay dëkku mbay peex ba tubaarkàlla <laughs> waaw waaw su baaxee sëriñ ko ko bind <laughs> man maa ko rab <laughs> ok sacré lay maanaam nag mu ñëw gars yi si kanam tuuti man na man na fay man na yesaay fay ci kaw ci kaw ñu yëngal ko ci kaw jël gisul dara gisul dara gisul dara génne leen téléphone seen poche yi waaye nan laar nan laar nan laar tuxaat tuxaat eh, eh brigé yi na tàkk na brigé yi Yes, sir. Fire. Check out. Check out. Ileboko check out. Get out. Kisimu Dara. Kisimu Dara. Kisimu Dara. Get on the telephone set for you. Nalar, nalar, nalar. Eh, tukha, tukha. Eh, brigade attack. No brigade attack. No brigade attack. Eh, DJ, take you bring the hall. DJ, take you bring the hall. Check out what come against. Check out what against. against. And so you're ready to scare. Are you ready for the show, niggas? Are you ready for the show, niggas? Are you ready? Mas é som! Leve para o som! Vai leve para o som! Som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, som, É leve para o som!